years, Barrow for life. There's no God in Gambia now. Yes. Five Five years, years. life. life. Wow, five years Five years years. It's just transition. This five years is just transition. a ye siya ye diya kamera nɔrɔla ŋa diya a fɔ sanji mɔ de lu da sanji mɔ don lafita kairo man ne don lafita kairo la lafita tenkulo la lafita jɛbɔ la o bɛ kiri kuma ɲɛw dindi mansa kɛwɔ lɛ dindi mansa kunda lɛ don sunata la muso lafta wollel yimɓe lulu Thank you. My, my purpose of coming here is to defend the constitution of the Republic of the Gambia. The Gambian people voted President Barrow for five years. The mandate of the, we are here to defend the constitution of the Republic of the Gambia. And in Gambia here, we, vote we, we voted our president to serve for five years, not for three years. Therefore, I and other people here all join hands together to support President Barrow to serve the Constitution of the Republic of Ghana to stay in power for five good years. President Barrow forever. Also, we are here. We are also here to defend the Constitution here. Yeah, the Constitution back the president. kamerel maɓɓe alo assalamualeykum wa rahmatullahi taala wabarakatu a gambianoli ngal be tento ngal be jayi allahllahmoyre kuñimala men kaɓonaliye mouhamed lamil fadi boulou a ntele kadiyamaliye midia a gambia ɗi a ngal tento ngal jayi ali yalla le fasa alman président o fasa ali yalla bankuɗi yaale fasa adum ali yayitandi ko handi président o président naata hanni e tili koy foye bansa ya ah, gambia diwni ɓe lorin fafiye sole kan waya kinna ko gambia diwni ɓe fundila ah, pour ka yitandi ko rebelol kanana banko tiña ah, gambia ñine sierra leone tiña ñine ñine ñine liberia tiña ñine libya tiña banku diwni mel yalon ko ikata balamba wole yakinna ko gambia mu misilimɓe bankole ti aɗum gambia fana qualified tale pour ka gambia ka luwañin ka fasa wole yakinna ko ka kafolo mañillo politique kuula aɗum ñin kama ko ɓena kam wolo haɗañi kan na nolu uh, na, gam na, na luwa ñin pour ko fasa o dalilo le akina ko uh, lota uh, melbe outside fana bukaral sihe kadu bake uh, mbe media mbe kaca kanje folo uh, ndel manke kibar talal di kibar talal mel yalon ko ay uh, ka gambiyanol fasandi ñola eɓe gambiyanol bulandi kan ñola uh, ndel manke o kibar talal di aɗum tel manque media solde mbel yalon ko mbe kuma kawnade adla me yalon ka ɓe gambiyanol kamfandi la tel manque o moliti ndel yenna suutonin tilo men ni ɓor years fafiye nga ga wuli biyawone kama wala yakinna kon funtitali ye na pour que na média plateau ñin kan pour ka kaccali ye a gambia ɗin ɓe dawoda a mari si alonko a gambia de wol qualify tala pour kata ta five years soto a ma kawo ma kan na fundi a rebelol lemu a duniya fawne ya fo ka yitandi ko a rebellia ñiya amman ɓeng aɗum coup d'état de kenola africa banque côté kan côté ke coup d'état stop tale ani men lafta kila mansadi ay kana samu palantero la du karele mun na sila bala adu ni men lafta fanan ka banko mara fanan banko ñini anin toñala banko ñini anin tiliwna banko ñini ani kurwola a kurwole ka muso ñini a kurwole ka muso bula woto gambianol tela gambia bula la ala barka alna lallamoyer kuñimala mohamed lamil fati ala barka aleykum dañé eh, ñing ke tan ñe contanoto ɓi kabirin koyna fo carton mbé ɓenta jam bi jumara ɓeele benta jam banko ɓeele ɓenta jam anke juma danda ɓeele ɓenta jam tesiro fatin tete kadi yamu janto nde bankuɗi yangore fasa aɗum nde bankuɗi yam mba fasata fokata fo faw nde lebra bi 5 years nde lefta wolde baro si han fo 5 years kaɗa wole danta gambia kono min danta gambia kono wole ñanta kelal aɗum min fanan kakke mten dari fana boole kila mbelola gambe ma adu aɗum ñanta la mbe mantari gambe fatala na bankuɗi yambole ora bol ɓolle funto kata ko ɓinin koyne fo ka ton ɓe funtita wo ketanñe sewo to konta noti kana kanyi président ken ɗo abe aɓe abe aɓe ɗo me na banko e ka fasa aɗum ŋaalande ko mo ɓeeyalande ko tentinaaɓe ɗo kuuɗal mbeŋolondi woto mba fataɗa mbiɗin mbi fow mba fatala ha naɓankoɗiya wala en funtindi aɗum mbawno malal fo ƴanni waati Five ɓiya five you. foten walla muñanti ko hadamadiŋo hadamadiŋo ni ta kayro la yettili ala ye meŋ fo ala ye meŋ fo ni ni yewo nooma i buka fili bari ala ye meŋ fo ni yewo fili rek a be fili la le nga hiɓe ko no sarankulunda kiñaye kay hadamaren mo hadamaren me anna wardo allah gati keɓe anna wardo allah gati keɓe inchallahu anda sankolo ka allah gati keɓe agana keɓe ɓayna anda sogoy assalamu aleykum be jam mowol be kontonna fen fen naata triyes dotinala mbaɓe kondono adama baro aɓe sanji le kela no banda ala gañeti wa sanji tanke ha par ce que ala banko aɓe doko men ke ka fasa timmandi kayra ko adu ala ba le fana abo la kayra be ka fo be kondon fen fen naata jama jamba be mbaɓe be ɓe duwakila be assalamu aleykum wa rahmatullahi taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu momon ka kafo kono la jang gambia ko 5 years and peace building bankola khairo ni ala tenku ni ala yiriwa mbole noma gambia di wod gambia di mbe kala vinyi na banko ya tanyaro fitina ko man la fi wala yo woto kunna mbe khairo ni tenku me ni na banko kan so duwa kafu fo also kontine birin sai fo fafaw be sa lo wo nyama me president baro kontona anal banko di pe kontantan sewata mbake mamma isizele mbase dan fa kunda yo ardi ɓe banko be konton la kaɓe kombo katon ton fo fo koyna assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatu mbal ɓe konton na momobi jange konton toni konton la ni ɓe wato men to men na président mba konton na balafa baro kino baro salihina baro mba konton na momo nata kayrala alman biya murun la ah mtol musol de nyanta fintilal de fondingel kan tolle ma koy ndolla wululaji mbe nya balale adam baro baro men bangola nim man kan fongle hasidoti nyaala baro jele hani men ma fo moye a ah, mbe nya ya jele wodo ala o mari ndol be duwala sangi tanne la sa 5 years o fonte deni 10 mbal konton al badi malong adama jata sumba busumbala mbota wol to ngal be konton to na assalamu alaikum assalamu alaikum ma ngeen nuyu ñep dawa gambia li lu am solo la constitution bi lay ñew pour defend three years agreement la wa constitution three years agreement ay few people ñoko tok waxtane ko waye constitution bi lu ñu waxon moy 5 years is it 5 years so bon ñun 5 years lañ mëna téye ñun duñ tee ci three years three years weetuñ ko fenn five years moo xam APRC nga moo xam parti boo mën a nekk tey ñu fi dajee yëpp Gambien yëpp ñoo fi daje parce que ba fii ñëpp añ fi dajee five years ñun suñ amuñ benn government boo xam ne three years la war a toog bon lu ñuy wéral Gambia mooy lii ñun five years lañ suñu suñ loi bi five years la wax five years la ñuy su five years passé suñu neexee ñu ànd ak moom ba ten years jërëjëf Sanyimua. Mero. Sanyimua. Mogas. Anu nimbanko. Mteyolela de. Wale baba ngayamo. Akaba nasita. Nasita. Na Adam Baro hani ndi nyasi difundola. Sala moksa. ko musidɓe am fulɓe mi salmini on kala gonɗo ɗo yimɓe mum hettere mum bandiru ɗo passé min calmini o min gari démonstration baro adama baro fo 5 es min gari ɓe mbima 3 es mine min jaɓani 3 es 3 es ko yimɓe tato kaldino constitution en gambia of law of gambia of 5 es min ɓeydi hen 5 es goɗɗo woni 10 es gambia 10 es baro assalamu aleykum wa rahmatullah wa e eh, mbe mawɓe kontonna mawɓe no mbiɗa mba ɓe kontonna e eh, mbe gambiyankol ɓe kontonna mbe dasporankol ɓe kontonna momom fintita mbe kontonna ani toni kontogola andu aɓeɓe muneñinen hola mo ni sanji luloñitinna constitution o mum fo hola mo faafiyeso ñinti e eh, mbeɓe olen nomba alhamdulillahi e mbe ole kata kane fana andu na banque yalum alnaal badi malo mister doucouré ndara ka diyamo ala social media kono mol ka alla boy andum bee be lafirin banko la kayro le man lafi banko la tanaw la andu moo mum be lafiro la andu na kuyate be ñaale newun na andu be lafiri mun na wolem ñaato taati man lafi koomata la andu be ñaato le wallinna man tara koomo walina so ole ɓen na diyar kono allah bar alsal barka mba ɗoɓoɓe kontona ala barka heɓiɗo salminta on constitution gambia ala mo meeɗi yiddiri yes hay goto meeɗa ɗum yi ko ganduɗa ko noon meeɗa wonde gambia ɗum waɗetake e laamu adama baro ko ma duuɓi jawi ɗi timma so duuɓi jawi ɗi timmi waɗe woto si waɗama woto sana yallabage sana yallabage baro baro baro baro gami aunada baro baro baro baro gami aunada baro baro baro baro gami aunada baro baro baro baro gambia unana e bara gambia nana nana nana leen santa tey nag man maa tudda Néné Toubab tey lu waral suma ñëw pour fii ñun Gambian si piis lañ bugga ak jaami dëkk bi loolu moo ñu wara ñu ñëw fii ñun Gambian si Bakeng Jammeh la bugga ñun votuñ three years ñun five years lañ vote constitution five years la wax kenn mësu ta kenn votal fii président three years Gambian si ma leen naa wane Gambia ñeme ñun fitna ñeme ñun fitna jaama leen buga ne leen oote peace ñu oote jaama si dëkk bi beneen président bu fi nekkoon yéen Gambian si yéen a wax ne buggu leen ko yéen Gambian si yéen keena ñoo isuwaat fi président bi toog nii ñoo di wax ne three years ñu votuñ three ñun Adama Barrow xamuñ ko yéen a ko fi isi yéen yi ñu ko isi yéen xam ngeen seen boppa yéen a fi isi Adama Barrow man dama juddoo si politique yaroo si politique kenn mënu maa wax politique ñun daal five years leen vote five years boobu noonu moo ñu waral tey ñu génn pour ñoo won sim boppa di won Gambian sii ne ak diaspora bi ne ñu yuut si dañ ne five years leen vote waaj ku fi toog nii daf fee toog five years ñun moom lañ vote five years lañ bugga ñun votuñ fi three years bu leen fi si problème Gambien si jaama lañ xam jaama lañ bugga ñun daal kenn xamul luñ bugga nee leen bàyyi ki yàllaa fi teg xanaa akuy sax dañ gom yàlla soo nekkee jullit sakar ma doomi jullit bu mel ni ñun ñuy julli waxtu bi juróom kon nee gom yàlla ni ku fi toog nii yàlla moo ko fi teg kon gom yàlla ne nee leen fitna ñu bàyyi five years bi mu neex mu naxari five years bi la constitution bi wax te ñun moom la ñoo àndal ñun ñun si luwaa ñoo dox si mbiri luwaa ñoo dox soo maa ngi wax gaay diaspora bi ni di wax yuut sii nee fonka suñu réew ñu ñaan jaama si dëkk bi te ñu xool yeneen dëkk yi problème ñoo am ak xeex yu fa nekk ñun suñ dëkk bi fii dëkki islam la dëkki jaama la ñun daal say bu nekk ñun suñ julee ñu ngee ñaan bi am jaama te ñu bàyyi fitna bu ñoo kurukuru nii ñoom seen tri yeesi taxut ku fi mu jógee fi soo tey daal yaa ngi gis mbooloo bi fii fees na del jinne yee noxoor yëpp a fi jaxasoo soo ñun tamit tey ñu ngi génn di wane si mboppa ne ñun Gambien suñu five years leen buga waaw loolu mooy suma wax.